bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin walsalaatu walsalaamu ala rasulillah wa alihi wa saxbihi wa man wala mbokki jullit yu tedd yi teew fii ci barab bu sell bi di jumaa ji ñu ngi leen di nuyu te di leen ziyaara ci turu daaira muqaddamatul xidma bi nga xam ne moom la sëriñ bi dénk muy saytu jumaa ji ak li ci aju te ci biir liggéey boobu liggéey bii ñu nekk da cee bokk te mën naa ne sax ci ëpp solo la bokk mooy fexe ba lëkkale boole ñi nga xam ne ñooy jiite ci jàkka yi ñooy taxawee jàkka yi ci wàllu jiite ci wàllu nodd ci wàllu lu aju ci jàkka yi ñu fexe ba lëkkale leen di fàttalante ak ñoom ci luy gën a rafetal liggéey bi ak di ko gën a sellal yaakaar naa loolu benn liggéey gënu koo féete kaw ndax jàkka yi bu jagee rek lu baree bari ci askan wi dana gën a mën a jag ndax naka jàkk niñ ko xamee jàkk moo doonoon lépp jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo doonoon lépp imaam moo doonoon lépp kon dañoo dem ba jamono soppeeku yu bari tasaaroo loolu nag lu ñu mën a dellu si waat la muy rol bi nga xam ne jàkk wala imaam walla sax noddukat yooyu yëpp am nañ ko ci askan wi day loo am solo lool. loolu moo tax amaloon na ci ay jataay ci biir koor gi rek mooy bi ci mujj boo xam ne gënoon naa yaatu. waaye daayira bi gis ne xëy na dajale ñëpp ci benn yoon loolu mën naa am mu xaw a metti ci ñenn ñi mu koy def par ay groupe tànn yenn jàkk daje ak ñoom waxtaan ak ñoom sottante ak ñoom xalaat ci liggéey bi ngir liggéey bi gën a jëm kanam tey nag dañu fas yéene jëmaat rek ci wàll googu muy wàllu noddu wàllu liqaam ba ci wàllu ilimaan muy jëmmi kii jiite ni mu war a doxalee jëmmi tamit jàkka niñ ko war a saytoo ak la ci aju yooyu tomb lañ bëgg a fàttalikonte ak yéen sëriñ Abdul Xaadir Buso mi toog sunu wet di kenn ci membre yu daayira bi ràññiku ci lool ci wàllu xam-xam jàng tamit li mu war a jàng fii ci dëkk bi ci daara yi sëñ bu Bousso mi njiitu daayira bi di imaamu jumaa ji jóge fa dem ci école yi ci ndaam ba dem Maroc ba yàlla dogal mu am fa ay lijaasa yu kawe bind tamit ay téere yu am solo bi ci gën a fëse rek muy tontu yi nga xam ne daan nañ ko laaj wala laaj yi ñu daan laaj Serigne Touba mu koy tontu mu fexe ba dajale yooye ci ab téere ci anam koo xam ne nii mënees na koo jariñoo ci àddina bi fépp mboolem defukaayu téere yu mag yëpp kàggu yu mag yëpp ci àddina bi foofu nekk rek mën nañu ko faa jariñu te moom moo ko liggéey kon kooku yaakaar naa ci wàllu jàkk ak la ci aju buñ ci fàttalee dana am njariñ lool kon ñu bàyyi ko mu ñëw ak ñun rek ay leeral euh, xam naa sax jataay mën naa bañ a yàgg ab tënk doon rek am nafar lay doon ndax ñi ñu fi nekk ñëpp ñu si nekk am na loolu yàlla mooy ci xam-xam waaye nag fàttalante moom dadul lu weesu ndax bu jubéeree dana am njariñ ki xamoon dana gën a xam koo xam ne fàtte woon tamit dana fàttaliku koo xam ne xëy na amoon lu ko ci leerutoon tamit mu gën cee jariñu rek loolu lay doon kon Serigne Abdou Khadir dañ lay bàyyi kàddu gi bu ko defee nga soobu ci liggéey bi. bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabil alamin wasalaatu wasalaamu ashraf al anbiyaai wal sayidina mawlana muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu leen di nuyu nuyu yi gën a sell yi gën a kawe di leen ziar di jéggalu ci kàddu yi comme ni ko suñ seex waxee rek daf dine ne buntu fàttaliku ci lañ nekk te fàttaliku moom xëy na suñu borom moo bindee doomu aadama noo xam noo xam ne day fàtte wala bokk yu baree bari da koy rëcce ndax xat-xati jamono buñ nee dañuy fàttaliku nag du mën a ñàkk am ku jël kàddu gi nafar yi ñëw gaaral loolu rek jotaay bi noonu lay tëddee insha allah ni ko siñ Cheikh waxee ab tënk lay doon danaa ci wax ak wàll joxaat ko kàddu gi moom mu wax ci ak wàll wàll gi ma ci wax nag day tënku rekk ci noddu ak liqaam ak lenn ci jiite ilimaan xam nañ ne ñi séq jàkka di ci ëpp ñenn ñi ay noddukat lañu doon di liqaamaale léeg-léeg ñu ngi jooy boole di jot li ñenn ñi nekk ay ilimaan léeg-léeg ñu cee boole di xutba wala ñuy def bayaan ña ca des mooy ñëw ñëw ci jàkka ja benn di ko saytu wala ñuy julli si wala ñuy boole yépp kon noddu ak liqaam am na wàccuwaay bu mag a mag ci jàkka mën nañ ne bokk na ci symbole yi nga xam ne sax wala bokk màndarga yi nga xam ne mooy gën a firndeel jàkka néegub suñu borom boobu ci laneen lu bokk ak moom bu ñu tàmbalee ci noddu boroom xam-xam yi ci masabu imam malik bi nga xam ne moom nañu Sëriñ Tuubaa tënk ñoom dañuy wax ne noddu bu dee waxtu suba boo ko doon wàññi mi ngi toll ci fukki baat ak juróom bu dul suba nag day toll rek ci fukki baat ak juróom-ñaar bu dee baati nodd yi nii lay tëdde allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaaha illallah ashhadu an laa ilaaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salaah hayya ala salaah hayya ala al falaah xayya alal falaax allahu akbar allahu akbar laa ilaaha illallah bu dee waxtu suba nag bu ñu waxee xayya alal falaax dañ ciy teg assalaatu xayrun minan nawm wax ko ñaari yoon baat yi yépp ñu fi nag baat bu ci ne ci mësa bu imaam Malik dañuy wax ne euh, dañu koy baamtu baat yépp lañuy baamtu ba mu des benn baat muy laa ilaha illallah muy baat bu mujj te it daaneel bu ci ne dañ koy maas maas ka néeg bu ci ne dañ koy maas maas néeg boo naan allahu akbar allahu akbar ngay wax dañ koy maas maas ka néeg ashhadu an laa ilaha illallah moom it dañ koy maas maas ko nit boo ñëwee ba ci xayya ala salaa boo ko maasutoon da nga naan xayya ala salaati waaye da koy maas maas ko nekk taa xam ne dafa tege ci kaw boo ko maasee maas koy soppi muy xayya ala salaa noonu lañ koy jànge xayya ala falaax tamit da koy maas maas ko nekk kon baat yépp nodd gi fi muy tàmbalee ba fi muy daanoo yépp dañ koy maas masque ak néeg dañ ciy taxaw tamit tuuti soog a jàll doo taxañ dara boo ne allahu akbar dangay ngay taxaw tuuti nooyi soog a jàllaat ba noo digg jeex bu dee ñaari baati seede yi muy ashhadu an laa ilaha illa allah ak ashhadu anna muhammadan rasulullah nee na sax baatu asalaatu xayru minan nawm moom it dañu koy wax ñaari yoon ñaari seede yi tamuy ashhadu an laa ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah danga koy wax ci suuf daal koy baamtu waxaat ko ca kaw sëñ bi teg ci ne looy lépp looy def danga koy jësmu mooy da koy mas-mas ka néeg jumla bu bu weesu rek kàddu gu daanu rek da koy mas-mas ka néeg mu ne nag diggante kàddu yi nga ciy jaarale dara donte sax junj la di joxañ dara loolu gënut bu fekkente ne dangaa nodd ba mu yàgg am lu jaar sa digganteeg nga continuer jékki-jékki sëqat ñëw wala dara daal ngànt ñëw bu boobaa diggante bu fekkee yàggut yàggut da ngay continuer rek bu fekkente ne yàgg na nag nga tàmbaliwaat nodd gi léegi kon ci biir loolu am na ay njuumte yoo xam ne kon ñu ngi koy gis ci léeg-léeg nodd yi nga xam ne danañ ko dégg ci suñu gox goxaan yi te loolu moo waral ndaje mi ci misaal kenn du wax allahu rek laa waxoon laa gi rek lañ moo fi am lu ñuy xëcc laa googu kase te dañ koy xëcc xëcc gu yam kon kenn du wax allahu bari na loolu nag ci ko ji ñu koy wax aal al aal googu kenn du ko xëcc niki noonu allahu rek ngay wax hu kenn du wax allahu kenn du ko wax amul benn xëcc deesu ko bind deesu ko jàng kon alif gi kenn du ko xëcc haa it kenn du ko xëcc kenn du wax tamit akbar bari na loolu waaye kenn du ko wax akbar rekk simple na yomb na tey it boo ko defee doo gaañ sa bopp doo yàq maanaa mi bar kese waxal akbar rek jàll ci la ci des waaye bar xëy na xeetu neexal la waaye neexal la gu ci bokkut mbir boo bëggee mu neex da ngay da nga da ciy dolli loo xam ne boo ko ci dollee cafka ga dana yokk waaye lii boo ci indee da yàq cafka gi akbar moom kenn xamul lu mu doon xëy na a bar nga taxañ ndax yàlla fi gën a màgg boobaa da ngaa te fii dañuy saxal kenn laa jut niki noonu it kenn du wax akbar dafa mel ne ñun wolof suñ jafe-jafe mooy dañuy xool li war a xëcc ñu bàyyi ko ñu ñu ñu gàttal ko xool la kenn xëccul ñu ñu jee xëcc yi jàll rek kon allahu akbar rek noonu kese la kenn du wax tamit ashhadu ashhadu rek la wax kenn du wax tamit ashhadu yooyu yépp mi ngi am kenn du wax tamit ashhadu ashhadu déedéet kon nañuy xool yi ñu war a xëcc yi ñu war a taxañ ñu koy taxañ di ko xëcc li ñu war a gàttal di ko tënk ñu koy tënk niki noonu tamit xëcc yu ëpp yi yi am ci allahu léeg-léeg da gis allahu goo xam ne yow mi bëgg a toog sax xikaayat nodd gi lu mu wax nga wax ko dangay sonn ndax doo xam moom sawaay day xëcc rek di dem doo xam fu mu jëm léeg-léeg nga gis laa ilaaha illallaah gu yàgg goo xam ne borom day jékki-jékki sëqat dab ko fa walla wala laneen laa rek doy na waaye da gis koo xam ne laa gi da koy xëcc xëcc ba buy wax illallaah da ngay yëg ne daa sonn ba jeexal tàkk noonu kenn du ko nodde kon xëcc yu ëpp yi ci am ci laa ilaaha ak yi am ci allah ak baat yu ni mel jëru ko kenn du waxit xayya ala salaa salaa xayya ala salaa la ñuy wax waxoon naa leen taagi dañ koy soppi hë xayya ala salaa am na ñoo xam nag dañ naan xayya ala salaa xayya ala salaa mooy kaay leen julli xayya ala salaa nag mooy kaay leen jaaru kon gis ngeen ni muy xëttee maanaam yi xayya falaax la ñuy wax kenn du wax xayya alal falaax xayya falaax mooy kaay leen ci àll bi kon day mel ne loo soppi rek euh, mu soppi maanaam yi kon loolu mën nañ koo tënk ci nodd bu dee liqaam nag moom nii lañ ay baatam nii la tëdde allahu akbaru allahu akbaru ashhadu an laa ilaha illa allahu ashhadu anna muhammadan rasulullah xaya ala alsalaati xaya ala alfalaaxi qad qaamat alsalaatu allahu akbaru allahu akbaru laa ilaha illa allah noonu mooy baati liqaam kon liqaam baat yépp day day tóol baat yépp day tool ba mu des baatub allahu akbar moom kese moom lañ ci wax ñaari yoon waaye baat ji des yépp day tool xaw wax nañ la ca noddu yépp lañuy wax ñaari yoon ba mu des laa ilaha illallah bu dee liqaam nag lépp benn yoon lañ koy wax ba mu des baatub allahu akbar liqaam itam baat yi ci ëpp dañ koy maas foofu la njëkk a wuteeg nodd nodd moom da ngay maas maas ak néeg da taxaw da ngay taxaw di jël di taxaw di jël bu dee liqaam nag moom da ngay maas di taxañ di dem dañoo wax ne dañ cee taamu nga taxaw ñaari yoon rek fi ngay njëkk taxawee mooy boo waxee ashadu anna muhammadan rasulullah ñaareel bi mooy bu liqaam gi daal nga xam ne boo doon wax da nga naan allahu akbar allahu akbar wa foofu nga njëkk a taxawee xaya ala alsalaati xaya ala alfalaahi qad qaamati salaatu allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah taxawee waat foofu léeg-léeg nag ku xaw a am condition tuuti moo koy mën surtout bu fekkente nag jee dugal ay xëcc xëcc yi léeg-léeg mooy yàggal lu bari xëcc yu yàgg yi te bari kon ñaari yoon lañu taxaw mas mask ak néeg te mooy ba waxee ashhadu anna muhammadan rasulullah ñaareelu taxawaay bi mooy ba waxee laa ilaha illallah dañuy bëgg na képp kuy liqaam nga laab ndax dañuy jàpp ne booy liqaam mooy noppi nga ngir julli booy liqaam it nga jublu xibla loolu lañuy taamu léeg-léeg xëy na du am ci jàkk yi waaye danga ko gis ci suñu jotaay yi suñu jotaay yi aada yi koo xam ne day toll fële liqaam ngir bëgg rek yi fii gën a gaaw jublu soowu liqaam ba wëlbatiku fudd nga nga kàbbar loolu gënut li gën mooy booy liqaam da ngay jublu xibla li gën it mooy képp kuy liqaam da taxaw am na ci suñu jotaay yi danga koy gis da gis koo xam ne day toog wala mu tëdd liqaam ba pare ne la may ma loxo ma jóg loolu gënut booy liqaam it na fekk sa yoo nekk ca julli ga na fekk nga pare pour julli am na ñu luugu ñoo xam ne dañ naan bu ngeen mënta liqaam ma liqaamal leen man julli naa ba noppi waaye bu ngeen mënta liqaam ma liqaamal leen <laughs> wa kawnuhu mimman yusalli tilka loolu la Sëñ Tuubaa wax yow julli gi na nga pare pour julli ci xëy na léeg-léeg du ñàkk nga gis koo xam ne euh, bañ a ñàkk palaasam mën na koo jaral yorul njàpp ñëw liqaam ba pare daal ne mën ngeen a julli man ma dem jàpp yi loolu gënut kon yooyu yëpp ay ay jëfi wolof la waaye liqaam ku koy def daa war a fekk nga waaj ba jekk jublu xibla taxaw ba noppi pare ngir julli Sëñ Tuubaa teg ci ci àttee euh, liqaam mu ne képp koo xam ne dangaa bëgg a taxawal julli ngir jëmmi suñu borom booy liqaam fal yufri dan baat bu ci ne na ko wax benn yoon baat bu ci ne na ko wax benn yoon wal yori ban mu fanniyaa takbiiraha baat yépp yi danga koy maas benn baat rek nga ciy wax ñaari yoon muy allahu akbar te mooy booy tàmbali ak booy jeexal léegi nag boo toogee ñu lay liqaamal yow mi nga xam ne dangay julli ci jumaa ji toog dégg liqaam man nga bàyyi kii liqaam bu tàmbalee liqaam rek nga jug taxaw wala nga bàyyi bam liqaam ba noppi nga jug taxaw loo ci def rek baax na am na ñu naan nga juga nga jugaale buy wax xadd xaamati salaa moom lañ gën a taamu ndax boobaa day mel ni wax ji dafa dafa dëppoo ak jëf ci waaye ci suñu jumaa yu mag yi li mat a bàyyi xel mooy am na ci loo xam ne bu ko ñëpp di bàyyi bu ko ñëpp bàyyee xel ba nga xam ne bala ñoo jug rek ñu liqaam ba pare mën naa indi sàppe dëng kon bu ñu waaj rek bay fëgg micro yi di waaju julli képp koo xam ne sa sa jug yomb na la nga jug ndax sàppe si mën a defar waale mën a baaxaale yaakaar naa mooy li gën kon loolu ci tënk mën nañ koo tënk ci noddu ak liqaam bu dee jiite lu baree bari ci suñu dëkk yi dafa mel ne dañuy tàqale diggante kiy jiite ak kiy nodd loolu moo ci ëpp waaye léeg-léeg ngànt am kenn nekk ci jumaa ji nga xam ne mooy nodd mooy jiite loolu it dara nekku ci mën nañ koo jàppee sax tiyaaba ju gën a yokk ci bu fekkent ne ngànt ko waral wala ñàkk pexe waaye li ëpp solo ci julli ci ki nga xam ne dafay jiite mooy la waxoon ci am noddukat mooy na xam waxtu wi na amuk farlu it ba noppi ni muy ni muy jullee wax ji nay ànd ak jëf ci loolu dañ ko taamu ci jiite lool boo naan allahu akbar dañuy wax ne mag ñi daa dañ jullee noo xam ne boo mosaan tollu fële dangay xam ci ràkk bu ñu toll wala ci ban action lañ toll ndax toujours dañuy fexe jëf ji ak wax jey day ànd liqaamkat yi suñu mag ñi léeg-léeg da nga ko seetlu ci ñoom dangay gis bu fekkente ne dañuy dañuy sëgg allahu akbar gi day gàtt ndax sëgg bi diggante bu gàtt lay jël allahu akbar rek ngay wax bu ñuy bu ñuy bu ñuy sukki bu ñuy sujjóot yi da ngay gis ñu ne allahu akbar nga yëg ne action bu gudd ci lañ nekk fi ne nii bu ñuy toog xam nga diggante bi dafa gàtt dañ naan allahu akbar rek yem ci bu ñuy sëgg dañ naan allahu akbar yam ci bu ñuy jugaat nga gis ñu mu gudd allahu akbar nga xam ne foo mën di toll da ngay xam fi julli gi fi julli gi fi julli gi toll rawatina ñun ñu bàyyi xel ne moo xam ci jàkka nga nekk wala ci jumaa dañuy am mag ñoo xam ne dañuy nekk seen kër di tollale léegi nag fexe bañ am benn habitude benn aada nga xam ne bu ñu la déggee danañ xam fi julli gi toll am na ci solo mag ñi daanañ def ci bu ñuy toog ba tey am na ñu koy def bu ñuy toog bu ñu julli ba war a taaya dañ naan allahu akbar yëgle nga xam loolu xeetu yëg ne toog la bu ko kii ñëw danaan ah julli gët ci toog lañ toll bu ñu demee bay taaya it dañuy mel ne koo xam ne dañ naan allahu akbar di wan ne allahu akbar yi ñu waroon wax yépp jeex na boo defee boo ñëwee wala ngay tollool da ngay xam fi julli gi toll action boobu ci imaam lañ ko taamu bu fekkee fii na nga xam ne lu ci baree bare dañuy jotli lii yow miy jot ginnaaw imaam ngay wane feeg juleem toll baax na ngay def lu mel noonu kon ab jotlikat wala imaam wërta yor benn forme allahu akbar waaye lu muy def rekk jëf ji dafa war di ànd ak dafa war di ànd ak wax ji war na it di farlu ci njàng mi muy rafet muy rafet ndax bari na ci loo xam ne jamono moo ko laajoon ak ñàkk ay jumtukaay ak xam-xam bu xaw a jafe waaye léegi ni xam-xam yombee jumtukaay ni mu baree yaakaar naa ne képp koo xam ne yàlla daf laa teg ci jàkka nga nekk royuwaay war ngaa mën a rafetal sam njàngin ba ku ko dégg xam ne lépp rafet na lépp jaadu na kenn du la ci mën a jam ñu xam ne it nekk ci jumaa di ci xëy di ca gontu barab la boo xam ne ñëpp lay joxañ waaye ñëpp lay roy nit ñi lépp loo def ci lu baax dañu lay bàyyee ak yàlla waaye njuumte loo def dañu la koy topp kon loolu lu mat a bàyyi xel la ci suñuy comportement ci suñuy waxin ci fi ñuy fréquenté ak yeneen ak yeneen ak yeneen xam ne lépp loo def dañ la ciy bàyyi xel bu dee njuumte lépp loo def ci lu baax nag moom dañ naan ah boppam la ko defal kon loolu ñu ciy bàyyi xel am na ñaar yoo xam ne it ci ilimaan yi war nañ ciy bàyyi xel bu baax a baax a baax muy kàbbaru armal muy kàbbar bi ngay njëkk def ak booy sëlmal ñaar yooyu kenn du ko guddal boo ko guddalee rek mën ngaa yàq jullit ñu bari ndax dañ ne maamum toujours day topp imaam ci li muy def bu sujjóotee mu sujjóot bu rukkooee mu rukkoo bu taxawee mu taxaw léegi nag léeg-léeg mën naa ànd ak imaam defandoo benn jëf imaam yóbbaale ko ko ba mu des ñaar yi muy kàbbarub armal ak sëmmal moo tax dañ naan bokk nañ ci li ñuy xamee imaam jude gi fiq mooy buy def kàbbaru armal da koy gaawal allahu akbar rek lay wax ndax boo fa nekkee naan allahu akbar da ngay gis ku ëppal koo xam ne def na ko bu yàgg toog di la xaar yàq nga ak julleem te yowoo ko bu dee sëlmal tamit asalaamualeykum asalaamualeykum rek ngay wax da njëkkante ak nit ñi da mel ni kuy njëkkante ak nit ñi ndax boo fa nekkee naan asalaamu aleykum am na ku yàkkamti koo xam ne moom nee na asalaamualeykum ba wëlbatiku yàq nga ak julleem kon loolu ñu ciy bàyyi xel bu ñu jullee ñaari ràkk yi bu fekkente ne julli gi dafa ëpp ñaari ràkk ba ñu war a taxaw bokk na ci ni ñu xamee ne yow li ngay def am nga xereñ te mën nga ko mooy da ngay bàyyi ba taxaw ba say cër dellusiwaat da ngay taxaw ba ne jonn soog a wax allahu akbar kon daal jàpp naa ne suñu seex loolu mën naa koo tënk ko defee li ci euh, allah jërëjëf Euh, jërëjëf sëriñ Abdul Qadir mel na ni waxtaan wi niñ ko doon séentoo amee na nu kawe njort ndax niñ ko waxee rek ñu ngi doon waxtaan ci noddu ak liqaam ak lu jëm ci wàllu jiite muy ilimaan ji ci boppam tomb bu ci nekk nag indi na ci loo xam ne yaakaar naa ne doy na sëkk ab bind bu ñu mën a yóbbaloo xam naa liñ ci yokk rek mooy ku ci dégg dara su demee mu jiim koo jëfe ndax du lu jafe te sunu aada ci dëkk bi wala dëkk yu xaw a mel ni ñun mooy nodd booluñ ko ci ñuy jàng nit da koy dégg rek dangay ngay ci koñ bi di dégg ñuy nodd ba nga mokkal baat bu ko defee noonu nga ko mokkalee rek noonu nga koy yóbbaalee te fekkee ne mën naa am kan ko doon déggee sax léeg-léeg moo am ay njuumte yu muy te moom du ko yëg kon daa mel ne ñàkk jàng gi mooy sabab bi waral yenn njuumte yi bu ko defee loolu nag dama jàpp ne day liggéey boo xam ne du du am fu mu yem dafa war a yaat daal ñu ko war a séq dafa war a yaatu te jàkka ju nekk ka fay jiite dafa war a am taxawaay bu muy war a taxaw ci biir jàkka ji boo xam ne du yam rek ci su waxtu jilu jotee mu jiitu kabar bu sëlmali daal di jug demaat ci ay yitteem loolu ci liggéey bi la bokk waaye daa mel ni yëmul ci foofu képp war naa doon koo xam ne ñu day mën a jaxasoo ak nit ñi ndax nit ñi jaxasoo ak ñoom mooy tax nga xam li ñuy dund te boo xamee li ñuy dund kenn ku nekk di nga mën a xam fooy jaar ak moom ba mën koo jariñ ba bu nekkee ci lu dul noonu nga mën ko caa génne su nekkee ci lu baax na nga mën ko caa soññ mu gën caa wi kon kuy jiite moo xam ci jumaa la wala ci jàkka la war naa fexe ba doon ku mën a jaxasoo ak nit ñi du doon rek ku beru wala ku tëju walla ku naqaree jëflanteel waaye mu nekk ku neex deret koo xam ni nit ñi dañ koy miin ba sax ku am lu ko lënd ci diine sax mu ñëw mën la ko laaj ak laaj bu lu niru niru lu ruqe wala lu ñu rusa laaj mu mën a am ñemeeg ñëw laaj la ko loolu tamit yaakaar naa ne lu mat a bàyyi xel la ci kii jiite mu war xam ne day jiite waaye day jàngale niki léeg-léeg ñi ñëw ci jàkka ji ñi ci ëpp léeg ay mag la ñu doon am na ci ñoo xam ne jug dem di jàng feneen mën naa am mu jafe ci ñoom su ko defee yow mi jiitu nag yaay fexe ba xam yi ñuy gën a soxla ngay fexe ba dañ koy jàngal ci anam ga méngoo ak ñoom mën ngay def rek léeg nga walla fajar gu nekk rek nga jàngal leen tuuti rek lu doon lu ñuy bind bu ñuy tëral nii waaye da koy wax rek ñu dégg nga ne tey kat dañoo bëgg a waxtaan ci faratay jàpp ñu xam ne farata mooy lan loo xam ne soo ko bàyyee njàpp mi du baax njàpp mi kat lii mooy faratay nàngam ak nàngam nga xam ne ñaari mbir la ngay tudd bàyyi loolu dañ koy jàpp bu ëllëg mi ñëw tuddaat yeneen ñaari mbir bu ko defee day mujj dañuy xàmmee faratay xàmmee sunna yi te dañu ubbi ay téere xew bu am tamit nga leen ci jàngale noonu su koor ñëwee nga ci waxtaan ak ñoom ci noonu su tabaski ñëwee noonu waaw xew bu am rek boo xam ne dañ caa war a xam lu ca lislaam digle nga ko jàngale ci noonu loolu yaakaar naa ne lu mat a bàyyi xel la ci ci roolu imaam yi ki noonu tamit imaam bu nekkee ci jàkka yi léeg-léeg mu gis ku def njuumte ci ñi mu jiite loolu mën na koo defar waaye na mu koy defaree mooy su noppee rek mu mu ne mbooloo mi dama bëggoon ñu waxtaan tuuti rek bala ñoo dem baat yu gàtt ah, daal ni kat ci misaal bu gisoon koo xam dafa dafa dafa dafa dugg ci jumaa ji di daw ngir bañ ràkk bi daw kii raw ko boo sëlmalee nga ne ah damaa bëgg ñu waxtaan ci julli julli kat dafa laaj teey ak dal kon koo xam ne ni yaa ngi julli seeti foo mën di jóge lu mu sori sori doxal ndànk boo ak son ba ci jàkk sax gis tamit doxal ndànk ba agsi ci foo mën a rukkoo nga rukkoo waaye gënut ngay daw dugg ci jàkk ci ndax loolu lay xeeñ teewlu gi nga war a teewlu doo ko man bu ko defee moom ki def loolu dana ko xam ki defu tamit dana ci jëlaale ab bind yonent bi sallallahu alayhi wasallam noonu la daan jàngale te wax maa baalu aqwaamin yaf'aluuna kadaa wa kadaa waaye du ne diw lu tax ngay def nangam ndax boo ko defee rek mën naa léeg mën naa jur doon saafara si jur jàng ko ni ki noonu it imaamu jàkka yi wala jumaa occasion bu am rek war naa fexe ba profité ci jariñ jariñ ci jullit ñi maanaam bu ñu takk ab sëy nga xam ne bu dee suñu jàkka moo fi faral di ëpp lu mu am soo amee lu mu gàtt gàtt balaa nit ñaa dem nga jox leen luñ mën a jariñoo moo xam day aju ci sëy wala day aju seen dégg seen borom wala mu aju seen àddina lu mu gàtt gàtt rek nga fexe ba jox la lu ñu buloo ñu bañ a tase rek takk ab sëy rek daal dem loolu tamit yaakaar naa ne lu mat a bàyyi xel la su ngénte amee tamit noonu soo tudd see doom bala ñuy dem nga wax ak ñoom lu leen mën a jariñ ndax lañ fi mën a wax bari na loo xam ne day am rapport ak ngént li mu doon lu gàtt rek loo xam ne du yokkaloo nit ñi benn minu wala ñaari minute rek doy na sëkk bu ko defee dañ koy mën a yóbbaale. nekki noonu it lu lu am solo te mat bàyyi xel mooy sàpp yi day am ñoo xam dañu jàpp ne sàpp yu jub amul solo daal daanaka bokkut ci julli gi wala daal jëru sonn. te yonent bi sallallahu alayhi li mu ci wax dafa am solo waaw dafa ne bu fekkee ne seen sàpp yi du jub rek yàlla day féewale seeni xol kon li fekk sàpp yaa ngi ñàkk jub rek yàlla di féewale xoli jullit ñi te loolu dara jëru ko loolu nag imaam bi mën na cee taxaw taxaay bu am solo wala noddukat bi bala ñuy julli mu ne nañ jubante sàpp yi wala mu xool ba xam am na fu fu jagut mu fexe bu lépp jag loolu daanaka juróomi seconde rek xaj na ci su ko waxee rek mu doy sëkk nañ jubbante sàpp yi rek bu ko defee ñëpp dañ ko xam day mujj sax du ko jar mu koy wax loolu tamit yaakaar naa ay solo yoo xam ne ni dañ koy woyofal te fekk na ci am solo la bokk niki noonu it noddukat bi ni ma ko waxoon léegi bu fekkee day def luy niru njuumte imaam bi muy bi jiite yaakaar naa moo gën a gaaw ci mën koo jubbanti ci keneen yaakaar naa ne imaam bi nga xam ne moo nekk ci kanam bu gisee na buy noddu da am na barab boo xam ne na mu koy waxee du noona mën na ko bàyyi ba ñu nodd mu woo waxtaan ci ak moom ci barab sàngam bu ko defee mën na ko ci jubanti ba loolu dana mën a saafara wutee anam gu jàpp ne lay doon kon yaakaar naa loolu tamit ci rolu imaam yi la bokk ñu bàyyi xel ni ñi jiite lu ñu gis si njuum dañu fexe xool nu ñu ko lijjantee ba loolu mën a jaar yoon mujj ñuy rek mooy ci wàllu nodd nodd yaakaar naa li ci nekk ci ay ngëneel te yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ko loolu doy na sëkk ndax wax na ne ci xadis bu wér boo xam ne dane law yaalamu nnaasu maa fi nidaai wa safi l awali summa lam yajidu illa an istahamu alayhi lastahamu maanaam bu fekkoon nit ñi xam nañ li ci noddu yoo yool bi ci nekk ak daraja bi ci nekk kon dañ koy tegoo bante maanaam su waxtu jublu jotee wala jàkka ji ku fi war a noddu ñépp a ñëw bëgg a noddu kenn du ko nangoo bàyyi sa moroom ñu ne ko léegi nañ ko tegoo bante ku bant bi dal si ko ñëw noddu waaye nit ñi xamuñu ko leneen waxaan na ba tey ne moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam day ñaanal yàlla njëggal képp kuy noddu waxaana tamit kuy noddu lépp lu ko dégg rek da koy seere da koy seere ëllëg bu dee nit la da koy seere bu dee jinn ju dégg mu nodd la bu ëllëgee da koy seere ci kanam yàlla kon loolu yaakaar naa ne doy na sëkk ci ci ngëneelu noddu kon ñu jàppee ne daal dafa bokk ci yu am solo yi daal bu ñu jàppee ne rek da doon loo xam dañ koy teg rek jox ko kenn nit mu yor ko noonu rek wala nit ki am na daraja boo xam ne àgg fa foo xam ne wër wër euh, xaw na weesu ci moom ñëw madinatul war bi mu ñëwee madinatul munawara moom Seydina Bilal ci lañ ko jox ndigal ci mu noddu keroog bi mu noddee waa madina gépp dañoo génn ñëpp di jooy ñëpp di jooy mel ne jamono yonente bi alayhi salaatu dikkaat loolu li muy wone rek ginnaaw bi mu bi mu noddaatee Seydina Omar moo fi demaat Saam digal ko ngir mu noddu te booba booba itam saxaaba yi mu àndaloon ñëpp a jooy Seydina Omar ci boppam sax da doon jooy ngir atmosphère bi mu indi boo xam ne ca jamono yonent bi la woon bi mu delloo siwaat kon loolu day wone solo soo xam ne noddukat am na ko kon ñun noddukat yi waruñoo jàppe suñ bopp nit ñoo xamante ni bi nit ñu doyadi la ñuy doon dañoo war a jàppe suñ bopp nit ñoo xam ne ñi taxawal diini ci lañ bokk waaw loolu itam mat naa bàyyi xel waruñoo doon ñu woyof ci kanam nit ñi waaye dañoo dañoo dañoo dañoo dañoo gàddu lu am solo ci lislaam te it mu bokk ci li gën a baax ci diine loolu dañ ko war a jàpp waaye buñ ko buñ buñ jàppee am noddukat yow ci sa bopp nit ki dañuy jàpp ne dañuy wax ne maanaam aw uude ni la gisee rek la lay ëwalee ñun noddukat yi buñ jàppee suñ bopp ñoo xam ne ñu woyof la ñu doon nit ñi dañuy woyofal fekk ni ko suñ seex waxee léegi nodd moom mbir la moo xamante ne bii ñépp a ko war a def ni mu ko waxee léegi joxe na ci misaal boo demee Madinatul Munawwara ca jàkk yonente bi alayhi salaatu salaam da ngay gis ñoo xam ne ci université yi gën a kawe la ñuy jàngalee waaye bu nodd jotee dañuy bàyyi seen liggéey yooyu ñëw di nodd kon loolu itam misaal la ci ne nodd moom yitte la joo xamante ne bii ju kawe la tey it lislaam da ko bàyyi xel jox ko daraja joo xamante ne bii ju kawe la kon euh, kàddu yooyu lañ ci bëggoon a euh, sànni rek di sant sëñ Cheikh ak euh, sëñ Abdou Khader ci waxtaan wu rafet wi nga xamante ne bii yëkkati nañ ko ci mbokk yi kon dañuy joxaat suñu Cheikh kàddu gi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf Serigne Hassan euh, yokk gi am na solo lool yaakaar naa rafetlu nañ ko lool kon xam naa bala maa jox suñ njiit yi bu ko defee mu tegal mu nodd ndax ginnaaw duñ doon waxtaanee ci nodd ak li ci aju bu ko defee mu tegal ñu bind ñu ci benn misaal boo xam dañ koy diglu. léegi bu ñu ko digloo ba noppi nag danañ ko mën a méngaleeg li sëñ Abdou Khadir doon wax di ko leeral ci nodd yaakaar naa kon loolu am na solo kon bu ñu jàngee àtte ba noppi nag jëfe gi mooy des jëfe gi nag faw ñu def ko ñu gis bu ko defee ci la ñuy mën a tàggatu ndànk ndànk ba lépp ñëw kon bala ma koy jox rek loo xam nga doon naa ko bëgg a wax sama xel ci génn mooy buñ dee fas ab sëy ci jàkka imaam bi dafa war a am na yoo xam ne lu mat a bàyyi xel la mooy doo toog jàkka rek ay nit ñëw ne la mayeel diw ak diw rek nga daal di fas te doo gëstu ba xam ndax ñooñu ñu war a ànd lañ wala déet yaakaar naa loolu léeg-léeg ñu woyofal ko mu jur lu rëy rëy ñaar ñu ñëw ñoo xam ne xamoo leen ak boo leen xamoon sax nga laaj ba xam ndax ñoom ñaara war nañoo mën a ànd wala déet seenu mbokk nu mu demee ndax ku ku jigéen ki mos naa nekk ci buum wala mos sa nekk ci buum ndax fi mu nekk ni mi ngi ci ak buum wala nekkul ci ak buum ndax ku góor kii mi ngi mi ngi ñeenti soxna ba mën ko war waru koo mën a jël wala ak wut foofu war na ko mën a jël ndax moom ay mbokk lañu wala di ndax léeg-léeg gis te lu am na fi bu yàggul lool at yi ci ginnaaw soxna soxna waajal nañ ko bañ na tey jii lay war a war ñu door a xam ne ndeke ñoom ñaari wuruñu mën a ànd xam ne jënd nañ bagage bu noppi moom waaw waaw xam nga loolu loolu doy na war xam ne jën nañ bagage bi boo yëgle ba ñu day war tey yaakaar naa ci ngoon bi door a xam ne kat am ku ñu leer na la ah, diw mi ak diw mi de bokk nañ nangam bañ ko xoolee ñu wuruñu mën a ànd ci sëy ñu mujj bàyyi loolu xam ne ca sens lañ lijjanti keneen ku fa mën a nekk mu nekk xam nga loolu it metti na te loolu ñàkk moo koy waral buñ gëstu woon ci njëlbéen gi rek loolu yëpp daaw kon ñoo yaakaar naa imaam bi war na ci bàyyi xel am na ñoo xam ne boo leen nag dañuy mer loolu day am ci nit ñi ndax am ñu metti ñaar ñu ñu ah, ñi seen i mbokk bu ñu dañu leen may boo leen laajee ay laaj am na laajum boo ko laajal da gis ne seen kanam day soppeeku waaye nag yaa xam li nga war a def yaakaar naa suñu fàllu suñu Abdou Khadir am na ci yum ci bind yoo xam ne daanaka moom matalante doy na sëkk yaakaar naa loolu it ku ko ci mën a gàddeet dana la dimbali bala ngaa takk ab sëy nga laaj laaj waaye yooyu yaakaar naa bu ko mën a dox ci imaam yi am na solo loolu ndax léeg bu ñëw maye ñaar ñoo xam ne sax koo xam ne sax du nekk ab jullit far tey doo ci xam dara waaw yaakaar naa yooyu mën lay bàyyi xel kon ñu déglu seen ji li ginnaaw bi dina waxtaanee ku ko soxla it bu jokkoo ak seen ji bi rek dana ko ko mën a jox ci clé wala ci whatsapp bu ko defee dana ko mën a teewluwaat bu àggee ci kër bu baax kon dañuy déglu nodd gi euh, dellu si waat ci allah

Abdou Khadir ci nodd boobu ñu dégtal yaakaar naa am na solo lool te méngoo na ak ni nga xam ne noonu lañ doon jàngale léegi xam naa bu fekkee jataay bi it am na ku mën a ñëw nodd yi dana ci baax xëy na ginnaaw lay ab son la boo xam dañ ko doon diglu bu ñu amee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 ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salah hayya ala salah hayya ala falah على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ما شاء الله waaw ah, kay jërëjëf waaw ah, kon bu ñu teewloo nodd sunu mbokk moomu gis nañ ni sàmmoonte naag li ñu doon wax eh, xëy na li sëñ bi doon wax rek lu ci bari ci noddukat bi ñu ko bàyyi xel mooy ashadu an daa bi ñu waxtaan ci biir woon dafa dañ koy dañuy jël masque ak néegi yóbbu ko ci laam gi wax ashadu al ashhadu al yaakaar naa soo bi ñu teg sax daa mel ni moom it daa mel ni an la ko daa mel xam naa ndax loolu lañ faral dañoo faral wéyal loolu daa mel ni waaw ay ashhadu al dañ ko ci ñu tudd idram mooy dañ jógal masque ci nun gi ko ci al waaye moom am na solo lool macha allah kon ñu digluwaat geneen rek ndax lépp rek day gën a wane ne kii bi am na solo rek la ilaha illa allah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 anna muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salam an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salaati ala alfalaahi qad qaamat salaatu allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah waaw jërëjëf moom xam naa li seetlu du bari xam naa li ci gën a am solo ñu seetlu ko ci mooy mu doon mag ba noppi di sàmmonteeg lu bari ci noddu loolu xaw naa jafe te loolu macha allah jéegu bu am solo la xëy na loolu ci gone lañ ko doon séentoo waaye mag mu mën a noddu ba noppi nga baat yi leer mu sàmmoonte yooyu wax dëgg yàlla loolu am na solo lool. xanaa li ñu kii rek mooy Chine rek mooy xaw a des H H H ah, yooyu xëy na ku ci kii ndànk-ndànk rek dina ñëw mën a tàmbalee mën ràññelee xa ak a xayya alal xayya a xa ak a ñaar yooyu bokkut boo ko kii dañ ko mën ràññee incha allah euh, xam naa bu dee ci liqaam bi tamit léeg-léeg ni ñu koy baralee léeg-léeg dana jural nga tëb ay xaraf fi mu ne liqaam ñu bari xayya ala salaati dañuy wax rek ya ya alal falaax boo ko dee seetlu fi mu ne ñii la xam ñu ko daan xayya ala salaati yaa alal falaax ba ñu wax dañuy tëb xàggi xayya ala salaati xayya alal falaax léegi nag ko waral mooy gaawal gi waaw xadd xaamati salaati tamit ñu koy wax bari na xadd xaamati salaati xadd xaamati salaatu xadd xaamati salaatu allahu akbar allahu akbar loolu bari na ci ñu ñu ci dal léeg-léeg kon juglaat benn de xam naa jataay bi sax mooy xaw a xat ne kon bu yaatu woon ñëpp dañuy feeñal seen yéene waaye yaakaar naa bu ñenn wax joxe misaal rek dañu mën a yóbbaale ñi des ngir wane rek ne li ñu doon waxtaani am na njariñ daal loolu rek lañ ci jublu bismillah Allah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 محمد رسول الله allahu akbar allahu akbar wa ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salaati hayya ala alfalaahi qad qaamati salaatu allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah ah tabaarakallah jërëjëf xam naa daal Euh, ni ñu ko doon waxee léegi rek euh, xëy na léeg-léeg maxaari bi mooy moom moom mooy kii rek waaye wax dëgg yàlla joxeen wu rafet na tey na amul yàq maxaari si nga xëy na day doon loo xam ne lu ñuy tàggatu ndànk ndànk la ba ñëw rek waaye dëgg yàlla joxe gi am na solo lool te lii lañu doon séentu daal wala jàpp nañu jataay bu dee am rek bu jàggee lu bare bare dana saafaraw ci li ñuy jàmbat ci lenn ci noddukat kon yaakaar naa waaw yaakaar naa kon ni ñu ko waxoon léegi rek su waxtu yaatoon ku nekk day ñëw barkeelu noddukat bu nekk ñëw noddu ñu déglu la ndax ak defar lañ ci jublu rek ndax jàng ak jëfe ñooy ànd suñ jàngalee bu noppi il faut ñu woo ñenn ñu pratique ñu xool ba xam ñenn genn ku lañ ci am waaye dañu gis moom mooy wane ne jéego bu solo ba am solo am na ci wàllu nodd gi kon yàlla na gën a jëm kanam euh, ñu ngi bu baax di sant nag suñu mbokk yi nga xam ne ñoo amal jataay bi di daayira muqaddamatul xidma mbokk yi nga xam ne ñoom lañu woo ñu dagg seen yit yëpp ñëw te xam ne li ñu woo njariñ rek la ndax luy gën a defar liggéey bi la gën koo yéwénal gën koo sellal ñoom itam ñu bàyyi seen yitte yëpp ñëw jóge ci ay barab yu wuute ñoom ñépp ñu ngi leen di sant ci turu daayira bi di leen gërëm di ñaan sunu boroom mu barkeel liggéey yi waaw bu ko defee it kenn ku nekk jataay bi na fi bàyyi numéro boo xam dina am whatsapp su ko defee dina leen yónnee nodd gi ñu doon teg léegi ma leen yónnee tamit waxtaan wi nga xam ne moo fi jaar léegi bu ko defee bu ngeen àggee gën koo mën a teewluwaat dana gën a am solo ah, kon ñi ngi sàkku rek ku fi toog toog rek na fi bàyyi numéro boo am na whatsapp bu ko defee sëñ ji mu yoree liggéey bi dana leen yónnee lu aju ci waxtaan wi lépp ah, kon yaakaar na loolu moo doon jotaay bi ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen joxaat dox daje beneen jotaay rek incha allah ci kanam boo xam day jëm ci liggéey bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.